mon ami sama goro El Hadj Omar Diop may jël nuyoo bi yëpp di teg sa loxo pour nga wasaaral ma ko département de Mbour may nuyu bu baax nag ñi nga xam ne ñoo ñu dalal tey jii mooy commune de Thiadiaye di nuyu euh, responsable yi fi nekk yëpp. di nuyu honorable député yi fi nek di ci jiital nak sama sœur sama xarit sama gorom mom tawit honorable député sénégal di ci tay sama xarit bo xam yenn say nak ñu ñu mbëkkante da tuti waye dama neex ci mom moy qualité yi mu am deug bi fidélité bi loyauté dam am qualité yoo xam ne politique dafa commencé raar te war ko woné war ko yëkkati war ko fonk donc euh, Pape Samba Diouf maa ngi lay nuyu ba baax di dimi sama sama rak abdullah Sarr keroog wax naa monsieur le ministre ma ne ko la woon. ak Mané Bar Babacar mhm. Mbaye li mu tudde Mané Bar def naa ne mille neuf cent cinquante quatre mille neuf cent cinquante sept la judd kon loolu moo jiitu suñuy judd ñun ñii ñëpp donc sama rakk la mhm. te sama rakk ju baax la mhm. parce que amal nañ njariñ askanam ma koy nuyu bu baax di ko sant responsable bi ñoo si waa APR départemental Mbour su ma leen mënoon lim benn par benn ku nekk dinaa la lim benn par benn wax si ñoom baax gi ma xam si ñoom ñu ma koy jéggal rek mais ñoom ñëpp gis naa leen te xam nañ man xam naa monsieur le maire Cheikh Tidiane Ba la defiser kii sama lépp ku leen tudde doom doom bu góor man la ko tudde ku leen tudde doom kooku deseetu la dara bi may ñëw fii dañoo coordonné ma ne ko ñooy ànd fii mais bi agsee fekk suñu bopp waa réew mi ñëwaguñ sera ne ko kon xaaral ma jiitu ji Fatick jaale ji su ma wàññeekoo ñëw fekk na jëm waaye moom tamit qualité yi ma gis ci Pape Demba Diouf nekk ci moom dëgg na fonk na président Macky Sall wàcc na boppam ba pare nag topp na ndigalu monsieur le ministre monsieur le coordonnateur départemental de l'APR wax naa la si sa biir bu doon ne la man mosuloo ma convoqué te ñëw ma te mosuma ñëw si sa réunion xëccoo président keroog wax naa may sa waali ak ak xaadim ma ne leen foofa daan toog si réunion bi daal demoon ba nekk place

ñetti la ko tek bu jëkk bi neena na leen c'est le maire de Thiadiane te maire nag lu mu bon bon bon xanaa dina am influence dina fa am ay nit il est originaire de Ngaparou cinq personnes yoo fa jël kaat yi ñoom ñëw bokk boobu pour ne pas dire cinq yëpp dans chaque commune du département il y a des responsables qui se réclame de lui parce que Kourou Macky Sall ay mais il y a xam c'est seen si këru Macky Sall El Hadj Omar Youm la ça les 16 collectivités territoriales du départ Donc, tout on a encore besoin de lui et on aura toujours besoin de lui man nii nga ma xam man lu ma war a wax dama koy wax lu ma war a def ma def ko fu ma war a taxaw ma taxaw ko waaye loolu wax naa ko ko wax naa ko feneen fu mu nekkul te loolu laa gëm parce que loolu gëm ko doxe ko mooy intérêt coalition bii ñu bokk mooy intérêt Sénégal te mooy intérêt Mbour kon monsieur le ministre ñu ngi kontaan. si gise biñ gise waat si gindeeku bi ak si waxtaan bi te loolu ñi mu mettre à actuellement dafa bëri parce que mbokk gi moo tëddee noonu mbuur ñaari ñoo fi tàpp rek ay mbokk lañ moo tax yenn situation yi bu amee dafa am ñoo xam ne vraiment seen xol du neex te dañuy nekk situation inconfortable kon lii ni nga koy noonu laa koy ñaane di ko wax sama mbokk yi may àndal yépp ne yàlla na ci yàlla def jàmm ak sutura yàlla nañu yàlla musal ci seytaane ànd bi yàlla na jariñ Mbuur yàlla na jariñ Sénégal yàlla na jariñ président Macky ak kilifa yu mag yi mu àndal ci la grande coalition loolu laa bëggoon a ci sama mag ji sama goro l'honorable le ministre le coordonnateur de la Somalie. waroo nekk Nampel. Mhm. jàkkaarloog jant bi ba pare. Ah. di def semblant ne lii du jant bi. loolu Nampel moo koy def. sàmm gi liggéey liggéey bu am solo ci biir département de Mbour mais ci commune Mbour. bi ma ko waxee ne ko da ñëw mu ne ma dinaa bàyyi lépp ñëw teeru la El Hadj Gueye responsable départemental. loolu dañ koy nag boo gis dina am léeg-léeg ay ñagas-ñagas mm-hmm. dina am ay incompréhension dina am ay malentendu boo gis nag laa papa ak mm-hmm. yaay ak doom ay xarit lépp dañ ci waaye bu yàlla tuddee ne ñagas-ñagas yooyu dañu war a dañ ah. dañu war a sant yàlla ñun ñëpp góorgóorlu ba déggoo ak jubóo ak bennoo mën a nekk suñu diggante loolu nag daa leen bëgg wax tey ne loolu yàlla dimbale na ci nañu man ak moom waxtaan nañu ah! gisante nañu lépp nekk suñu làng yaa xam

dañu bëgg a bokk lépp di ko waxtaane di ko diisoo bu intérêt Mbour pour intérêt commune Mbour pour intérêt Sénégal pour intérêt président Macky Sall loolu nag képp koo xam ne en ci suma xarit nga bokk sumay allié politique nga bokk ci suma famille politique nga bokk maa ngi lay ñaan loolu nga jàpp ko di ko tëddee di ko yeewoo ba ci indi benn ci des mooy am nañu njaboot am bu Sira Ndiaye sa sœur la Abdoulahad Sarr sa frère la depuis démb tey ngeen bokk ndey parce que seen commune bu te allah dinañ toog waxtaan ñun ñëpp dama dañu am ay gan yu ñëw suñu biir tey ñu ngi ci benn parti socialiste ngi ci AFP ngi ci mais ngi c'est pas n'importe quel parti boo leen xoolee les résultats de Réumi en 2019 ngeen xam ne c'est un grand parti dans le département de kon ñun li ñu war mooy defar suñu kër pale ko ba mu set ba gan yi bu ñu ñëwee man fi yaatu man fi fexe waaye bu ñu fekkee suñu kër kasarool yi di naaw yëpp yi di naaw xeer yi di naaw mais gan yooyu bu boobaa dañuy dañuy retiré dañuy nekk ci kerse dañuy nekk ci ay difficulté te dara jaru ko dara jaru ko ñun ñoo bokk suñu lépp amuñu mosuñu am sax benn problème wax naa ko danaa ko boo xoolee incha allah mosuñu am problème man ak yow mën naa am nag nit ñi moom dañu bàyyi weer ci ay fanam. dëgg coow rek indi fii dem fii dugg fii génn fay ñoo xam ne loolu rek la ñuy dundee. mais mosuñu am problème. kon loolu da dox ak grandeur mm-hmm. ñu toog waxtaan wax naa ko si rajo wax naa ko laaj. dinaa ko waxtaan naa ak Cheikh Issa incha allah wax naa ko na ñëw toog ak yéen wax naa ko aussi délégation bu marché léegi la fi jóge commune nu Mbour boo leen àndee nekk benn mais defe naa ne sax y aura même pas de combat midi la ñuy gagné élection parce que li réew mi am ak APR ak am def ñu boole ko mais wax dëgg yàlla moom macha allah kon nag yàlla ñu yàlla dimbale loolu ñu nësëg yalla may ñu agalé ko ci jàmm li ñuy yéene suñu xol yi ak suñu xel yi mhm. yàlla ñu yalla dimbale aussi benn seytaane ba ko yalla ñu teg ci suñu bët li ñu bëgg wax naa ko léegi ñom élage lendemain 23 janvier 16 communes collectivités locales département de sans discussion et loolu c'est possible kon Thierno vraiment très content